que monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak tàngaay fii nii. waaw. monsieur Ba na nga def. metti na. xam naa da nga sonn. loolu moo tax nag ma indil la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni. moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. verre bii nag moo la sonal. verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça ne va pas ba tey doxul. muy noonu. léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet yi bàyyi xel seen euh, chaîne production bii di Tawfekh production ngeen di ko am ci plateforme boobu lay ci YouTube bi euh, tey ñoo am mbégte incha allah fas yéene faram-fàcce actualité bi nga xam ne moo marqué cette semaine euh, ngeen gis bu baax a baax ñuy dëgmal xew-xew bu majeur bu am solo fii ci xew Sénégal waaye laalaale àdduna wëngal këpp bokk na ci màggaluk Serigne Touba Khadim Rasoul di am lii nag ci début octobre bi di yemoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ngeen gis coow lii ak mbas bi contexte bi mu amee Serigne Bassirou Mbacke mi yore kàddu ku bu tedd bi euh, yore lépp lu jëm ci nag yónnente ak ndigal yi nga xam ne moo soqeekoo ci sang bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér ko teewlu la déclaration importante bi nga xam ne def na ko sànq euh, ci li nga xam ne moom moo soxal wàllum Euh, contexte beeg màggal geeg liñ ciy waajal waaye tamit daañu euh, teelu bu baax a baax lu jëm ci lépp loo xam ne moo soxla wàllum euh, inondation yi gis ngeen ko bërki démb ba démb ba tey ci sànq ci suba ndox mu bëri wàcc na fii ci ndakaaru ak lépp lu wërngal biir réew bu Sénégal ci gox yi fasantikoo gis nañ fa ndox mu bëri mi ak ni nga xam ne moom la am ay dégâts am ci li nga xam ne tamit yàq na ko ci wàllum ay conséquences yu bëri bëri ba waral ay kàddu jib ci ay kilifa lu mel ne plan Orsec bi ñëw waaye daañ ci li nga wàllum euh, yi tamit euh, insécurité yi wala bokkul meurtre euh, yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fan yile waaye daañ ko jeexale ak lu soxal li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllum Euh, li ñuy wax Akon City di benn euh, liggéey boo xamante ni ay dëkkuwaay taax yu bakkane yoo xamante ni projet la bu mu euh, entamé moom le rapport bi nga xam ne que c'est un fils du pays doomu Sénégal la waaye tamit nekk koo xamante ni doomu Amérique la nar ko fee amal ci Mbodiène di digganteem ak Dakar toll ci cent kilomètres daañu ci ñëw incha allah ci kanam ñu faram-fàcceel leen ko. mbokki internet yi wax nañ ko sànq ci déclaration bu Serigne siru Mbacké Abdou Khadre bi euh, ngeen gis léegi nga xamante ni moom la fësal ci fële nga xamante moom moo di ca résidence Serigne Touba Khadimou Rasoul euh, firndeel ne lépp lu jëm ci nag équivoque yi amoon wala jeexi jaax yi amoon ci li nga xamante moom moo di la tenue de cet événement important euh, tant symbolique mais également boo xamante ni am na dayo bu mag yaa na war këpp nit ñi doon ci indi ay coow ak context bi li danañ ko am. incha allahu rabbi waaye nag euh, ku nekk xam ne ne euh, Serigne Mountakha Mbacké basiru kenn njëkku ko ci xeex lu jëm ci mbas mi leen ndax bi mbir mi déclenché euh, depuis le 2 mars gis nañ ne moom moo njëkk a yëkkati ci jibaam lu toll ci ñetti téeméeri millions jéglale ko état bu Sénégal ci vraiment la lutte bi nga xam ne ñu koy mënee face à cette pandémie kon ça veut dire que donc tey jii ku xam askanu murit ku xam ahlu yoonu murit ak njabootu Cheikhul Khadim xam leen dëgg-dëgg ci taxawaay lépp loo xam nag moom mooy gën a jëmmal kanam ak lépp loo xam ne moom mooy teg nit ñi ci yoonu njub teg leen ci yoon woo la ndax ku nekk xam ne ni yoon yi ci loolu la sosu ji teg la ci yoonu siraatal mustaqim eh, ngir lépp bañ a joy kon tey ji dara bëggul mu joy moom sëñ Muntaxa waral na màggal gi nga xamante ni mboolem ñi ko fi jiitu eh, di ay kilifaam nekkoon ci xilaafa gi di ko amal moom it bii la yoon incha allahu rabbi mu nar ko amal donte ci mbas la tombeel it euh, kenn gënu ko dëppook tegtal ak ndénkaane waa kër bokk na ci sëriñ Mountakha kenn du ko gis te gisoo ko kaalaam ku gisaan suñ mun Mountakha Mbacké gis faasam yu rafet ya gis reetaan yu rafet ya da ngay am mbégte tey ji moom boo demee ba nga xamante ni euh, boo ko gisee ba di rek ngay gis sang bu tedd bi nga xam ne kon kii ku respecté état la ku jox cër état la moo waral tey ji boo ko gisee ak kaalaam ak maskam nga xam ne kon kooku il est exemplaire joxe ne dëgg-dëgg ay dénkaan euh, Serigne Bassirou ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci moom nga xam ne kon euh, màggal gi lépp lu jëm ci dénkaane waa ka docteur Serigne Bassirou wax na ko 5 euh, millions de personnes yi nga xam te ñoo daje Touba Touba la fay daje ci mbooloo ay gëstukat ñu ko wax ku xool dans les chaînes internationales nañ ci ay débat yu dul jeex que li sax boo demee ci dëkk bu sell ba di Makkatal Mukarrama sax mbooloo mu tàkk noonu doo ko fa gis kon Touba nekk na dëkk boo xam ne la muy dajale ci doomu aadama bëri na waaye loolu itamit dafay tegtal ne kon ñoom taxaw nañu tem ba képp koo ngaa ñëw yow it nga am loolu làmboo ci ak discipline surtout taalibe yi am noo taxawee loo xamante ni da a jox cër sëñ bi da nga ko gën a jox mën a wàccuwaayam kon yaakaar naa ne pour bañ a guddal ci point boobu mooy ñi xam ci euh, mbir mi nañ ci wax kon sëñ Bass leeral na am nañu gëstu def seen ay mbir yooyu euh, sëñ Bass leeral na lii moom kàddoom moo compté ci yoonu murid sëñ Bassir lu mu wax sëñ mun taxaama ko wax comme moom la mu wax la nit ñi di déggu keneen ku dem feneen nag wuti sa gëstu bopp yow yaa ko wut waaye du lu loo xam ne yoon moo la ko def loo donc ñi nga xamante moo xam autorité ak képp koo xam day wax ci màggal euh, tudd moo kenn nag na ngay noppi ñi ci war a wax ñi nga xam ñooy nitu daara yi doomu soxna yi xam ci nañ ci wax ñi ci xamul dara jàngi woon ay Molière ak ñeneen jëm seen Molière ba ñu wax ci loo xam ne du seen diine parce que religion dafa sensible kon mbokk yi ñu jàll ci beneen ponk. ponk ponk bu am solo bokk na ci lu jëm ci wàllum inondation euh, tey jii ku nekk xam ne ne euh, fii ci xëbu Sénégal euh, yàgg nañu wax. ay plan yoo xamante ni décennal ay plan yu dul jeex ñu jox plan ORSEC pour faire face à cette euh, à ces à ces difficultés liées aux inondations mais ba léegi France daal di xëddan ma jàpp ne tey c'est l'échec total di politique moo am ndax ku xool tey jii ce qui est de se passer au niveau de la banlieue je dis partout même si réew bu Sénégal gis nga nit ñi tey am na ñoo xam ne fanaanuñ ci nekk am ñoo xam ne yenn wuñ ci nekk yenn wuñ ci kër togguñu yàkkuñu euh, pendant ce temps on on a voté un mille milliards boo xamante ni booy xool c'est un tiers mooy quatre cent milliards yoo xamante ni tey jii euh, wala boog sept cent cinquante milliards yi nga xam ne nee nañ jagleel nañ ko lu jëm ci euh, xeex mbënn mi tey jii ñu gis ne euh, Sénégal di jànkuwante jafe-jafe mooy une question une question de de gestion se pose c'est-à-dire jii dans les norme on devrait quand même ouvrir une enquête pour faire des quand même des enquêtes yoo xam ne par rapport à l'utilisation de ces fonds parce que loolu du du génnewul ci njib jiitu réew mi ci jib ak ñun Sénégalais c'est le contribuable euh, qui ki qui qui participe à à à cette lutte donc je pense que tey jii il est temps ñu xam xaalis boobu fa na dugg euh, tey jii il est temps également ñu xool ndax ay canalisation existe na dëgg parce que boo xool tey jii demal zone de captage bu ñu nee dem bañ ne zone de captage tey ji boo fa demee euh, bassin de yëpp toj yi. yàqu cest à tey jii y' a une, une, une euh, l' absence d'une volonté politique réelle et engagée euh, qui qui manifeste également tey jii nga xam qui est manifestée par rapport à, à à cette situation je pense que il est temps que ñu résoudre définitivement cette question bala maa bëgg a dee ñu naan Sénégal bon boo demee dans les autres pays di cité yeneen réew mais bu ñu demee ba réew yi nga xam demal Arab Uni wala yeneen réew yi dañuy dëkk ci biir géej gi kuy dem bay créer ay man jàpp naa ne defar ay yii nii warul a poser problème. dañu wax dëgg gi dañu ko wax Sénégal fii nii metti wutal liggéey inondation mu waxee ñu naan lii ak nangam même bu dee aussi ci côté sénégalais yi foofu aussi am na part de responsabilité parce que am na euh, benn euh, indiscipliné boo xam ne aussi nit ki da koy wane munoo muy taw nga génne sa fosse tëjji ko munoo di jël mbalit di ko def ci fosse yi fàtt yooyu aussi c' est à dénoncer yoo xam ne si c' de la part de la population ñoom ñoo ko war a bañ a seen bopp di njëkk am benn euh, patriotisme boo xam ne dañ ko wane par rapport également ak ak ak jëfin yi ñuy doxal mais lu am càmm ji état moom la ñu fal dénk moo wàcc ci mbedd mi ne damay dagaan baatu askan yi kon askan boobu war nay répondre à leurs besoins à leurs préoccupations bàyyi seen politique politicienne bi ñuy dawal xam nga tey jii c'est bi beau de créer des nouvelles villes et cetera moo am ay taax yu jëm ci kaw mais tey jii fan fan ban sens la am ban sens la am. tey jii dans la capitale dakaroise les gens font fa euh, font face à des difficultés dans la ville même am am am euh, fépp munoo jaar fenn daa ça veut jii état bi dafa échouer sur tous les plans te il temps également que ñu dox ci. ñu jàll ci beneen ponk bokk na ci wàllum lu soxal euh, faat yi ñu neeme ko jamono ji mu nekk ay études profondes yu ñu ci war a def par rapport. ak psychologie bi nga xam ne war nañ ko xoolaat euh, ci ci situation parce que bu ñu xool ñi nga xam dañuy faat ñu bëri euh, soit dañuy nekk ci ay fonctionnaires de l'État lañ soit ñoo xam ne nekk nañ ci euh, liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla mën nañ ne xëy na am na si lu ñu jàpp wala lan moo leen war a pousser dëgg-dëgg ñu ñu ñuy faat gis nañ fii douanier bi nga xamante ni euh, gis nañ li fi li fi li mu def mu nekk lu doy waar ak police yi euh, gisoon nañ fi douanier bu faatoon boppam ci otoom ci yoonu jas bi euh, yàggul dara ñu gis fi koo xamante ni ràññee nañ ko ci l'armée gi it tamit mu faat ñetti mu faat doomam xam nga loolu aussi ça veut dire jii am na loo xamante ni war nañ koo def benn gëstu bu am am am solo surtout surtout surtout wàllum psychologie. surtout les sociologues ñu def ci liggéey parce que dama jàpp ne tey jii ki nga xam ne il est dans le confort wala boog jàpp nañ ci la nekk tey jii mu faat boppam wala mu faat ak njabootam wala mu faat àndandoom yaakaar naa ne loolu lu ñu war a xoolaat bu baax a baax parce que côté boobu aussi également euh, ci la sécurité euh, foofu du nit ki rek moom aussi am na sécurité boo xam ne moom moo ko war a mën a defal boppam mais je pense que tey ji bu ñu demee ba parce que loolu lépp lu ko indi aussi il faut ñu xool moo tax ma ne il faut ñu def étude profonde maanaam ñu gëstu parce que am ñoom dañuy nekk seen biir liggéey ñu am salaire bu baax nekk dans le confort mais parfois également am na lu leen di pousser à ce que ñuy def yenn par contre am na ñoo xam tamit danga leen di gis foofu nga ñee leen yaakaar ne ña nga ca lu dul loolu fekk te yow la dund ci bërëbu liggéeykaay ba na la ko yàlla nëbbu parce que am na ñoo xam ne démotivation da leen a sonal te la gën a danger mooy démotivation démotivation baaxul benn bi aussi mooy côté de la population boo dëkkeek nit nga gis yenn signes il est temps nga teel a révéler nga teel a def ay ay démarches xool parce que am na ñoo xam ne nga nekk ak ñoom ñu sangu ba seer sol lu jekk mel népp mais du point de vue psychologique am na absence am na lenn loo xam ne manqué na si ñoom mais Sénégal malheureusement médecin après la mort def. nit day nekk ak yow euh, nga gis ko muy dugg ko génn xamoo fu mu nekk xamoo lu muy liggéey. nga jékki-jékki ñu ñëw arrêté ko arrêté la fekk te yow mi ngoon ci koñ bi di def loo xam ne yaa ngi koy seetaan wala nga gis ko xam ne yaa ngi dëkk ak moom muy révélé yenn signes yoo xam ne da nga naan ax ah, kii de la ci dañuy teel a parce que nit jamono ji dafa am ñoo xamante ni da nga leen di teg teg nit mais fekk te yoo euh, jëmm jaa fa nekk mais seen xel nekku fii loolu aussi il faut ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci bàyyi xel bu baax a baax xëy na moo waral tey ji meurtre yi bëri